ba léegi changement amul changement amul rupture amul lu doon am mu ngi am ba léegi li ci kaw nag ñoom ñoo ko xam ñoom ñu nekk ci kaw mais ñun li ci suuf ñu ngi koy gis jaxaran suñu bët changé wul ni Macky Sall doon doon doon kiiwee doon ni Ablaye Wade doon doxalee noonu la Macky Sall di doxalee nii rek. sa wasila bu la expliquer dara mooy loolu quoi parce que moom mën na gis loo xam ne yow gisoo ko. gis nga gars yi xëccoo nañ fi ay bakkan dem fi loolu lépp mais peut-être moom yàlla mayoon na ko bëtu mu gis ne Abdoulaye Wade buñ day day wàcc te coow du jëpp mais nit yi fooguñu woon loolu parce que dañ doon demee suñu fugg jeunesse dañu foogoon ne ñun ñoo gën a xam ñëpp ñun ñoo gën a nekk ay intellectuel fekk nekkul dëgg intellectuel gënul yàlla dalay wan quoi dalay bàddil. mais néew bi gis nañ tamit yow boo xoon nga si CBA. CBA benn benn coalition la woon benn mouvement la woon et tout bokkoon nga ci te jot nañ tamit seetlu ni ak tra à travers gaal gi gaal gi wax nga bu baax ak Ablaye Wade bu baax a baax ni tey jii defar ngeen réew mi. bàyyi waa dëkk bi tey dafa ngeen dëkk bi bàyyi waa dëkk bi waa dëkk bi génne nañ dëkk bi bàyyi leen ak dëkk bi. yaa ngi dégg donc yow contribuer nga ci ñu xeex Ablaye Wade ba ñu jóge fii. waaw waaw waa gis nañ loolu. donc yow impliqué wu woon nga tamit carrément. Mhm. léegi man sama laaj mooy dañu nekk ci tey. ñu ngi ci tey alternance am na. ñu fal Macky Sall mooy ni nga waxoon léegi yàlla def na xëpp ab jonk am na ñi ci jot a ñàkk seen bakkan ñoom Mamadou Diop ak ñeneen ak ñeneen yàlla na suuf sedd seen kaw mais tey xeex nañ ba loolu noonu jóge fii ba ñu teg beneen régime bu bees muy Macky Sall ak gouvernement daanaka yàggul 2014 bii la fi nar a am deux ans yow nan nga ko dundee changement bi ak yow lan mooy say attente lan ngay xaar ci Macky yaa ngi dégg. ak tey jii tey yow moom ni muy gérer réew mi ndegam ça promet ndegam maanaam dina jëm ca kanam mooy li olof naan cin bu baxee bu naree neex su baxee xeeñ yow nan nga ko gisee régime bi nii Macky saal waaw régime bi gars yi euh, dañu dañu buggoon changement moom sax boo seetee ci ay discours lu ci ëpp loolu la doon wax ko quoi changement mooy maanaam indi leneen loo xamante ni moo gën li fi nekkoon Macky ñëw na toog mais man je dis que ba léegi changement amul changement amul. rupture amul lu doon am mu ngi am ba léegi li ci kaw nag ñoom ñoo ko xam ñoom ñu nekk ci kaw mais ñun li ci suuf ñu ngi koy gis jaxaran suñu bët changé wul ni Macky Sall doon doon doon kiiwee doon ni wax Wade doon doxalee noonu la Macky Sall di doxalee nii rek. léegi nag man lu ma koy wax mooy que ni moom moo ma gën a xam parce que ñoom xam nan Macky Sall xam na. lan lan la Sénégal xaar ci ñoom parce que moom ba mu leen di wax loolu la leen waxoon mais li mu leen waxoon na ko def soxlawul conseil yi wala dara li mu waxoon Sénégal yi bañ fal ko li mu leen digoon bañ fal ko na ko def wala bu ko munul mu wax carrément que ni man jéem naa mais munu ma ko waa ma mu mu bàyyi. parce que ñun suñu problème loolu la gis nga Macky Sall ba mu faloo topp dama bind comme audience bi dama def benn son. ma koy expliqué naa ko ay tàggkat yi dinañ jege si jaykat yi wàllu si def transhumance ñëw wax ni dal lay wàllu si waykat yi jóg tuddee la guddi yi boo bëggee mucc faw nga du dëmm yi ñoo lekk xel wàdd maki duñ la fi bàyyi bu dee dañu bëgg pepp ne leen ñu bay amul mouvement wala parti fii ñëpp la boole fal am ci yow yaakaar maa ngi ko daane fal 2012 kon maki bul xaabaabal isa ce ga? comprendre nga fii loolu la ba bo bëggee am sababu dara sax ñooñu ñooy ñëwaat rek ñoom ñoo koy yàq parce que fa la ñuy nekk di la tag ak di la jaay man démb maa ngi dégg ay anniversaire yu ans lu doon am ay nit di jël ay njaganjaay ñu leen jox ay mille francs t-shirt karang karang mais yooyu mooy am ba léegi ba pare ñu ne ñu dëkk bi dañ ko bëgg liggéey ñoom xaalis boobu duñ ko jël ñu jéem a wutal jeunes yi liggéey duñ ko jël mais duñ def loolu lépp ba pare après fi la ñuy toog ay benn affaire am fii comme gars yi jël gaal wala benn affaire ñu jël lépp xëpaat ko jeunes yi du dara quoi jeunes yi banuñu mais dañu bëgg a tekki am na ñu bëri ñoo xamante ni affaire yi ñu ngi leen di jàpp ndànk-ndànk parce que mooy loolu quoi amatuñu espoir da ngay gis nit muñ dem ba am 30 ans def benn affaire bu ndaw dem dem dem te du fa. xam nga vie am yàqu noonu te kooku boo ko mayoon benn am na ñoo xam ne benn chance bi ñu leen ko mayoon ñu jël ko mais duñ leen ko may ñeneen ñi la ñuy topp di leen may chance duñ dem duñ jëmee Sénégal si kanam day gën a arrière man bul sonal sa bopp.